Sufyaan as-Sawri nee na fukk yi de moom ci ñàkki teggiin la bokk mat nañoo moytu lool bi jëkk mooy nit di ñaanal boppam rekk yem ca bañ a ñaanaaleel ay waajuram ak ay mbokk jullitam loolu ñàkki teggin la ba ca topp koo xam ne danay jàngal xuraan waaye du ko maasale bis bu ne tey mu jàng ëllëg mu bàyyi déedéet lay teggin mooy bis bu ne mu jàng alxuraan te bañ koo def bis bàyyi beneen la ca topp mooy ku dugg ci jàkk ba génn te waxtu wa aay wuñ ci woon sàggan nag ci jàkka ba génn te julli ci jàkka ja ka ca topp mooy ku bu ci ay armeel rekk jàll ñaanalu leen xanaa rekk mel ne ku rombul ay armeel ku bi armeel kay war naa fàttaliku ne lu yàgg-yàgg dana fekk ñooñee foofee ñu tëdd ñu bokk fa tëdd lu yàgg-yàgg yàlla doon leen a dekkal fay leen seeni jëf ko defee nag loola tax mu waaru te ñaanal leen su ko deful rek xatu teggin ka ca topp mooy ku ñëw ci dëkk boo xam ne am na jumaa bis ba itam di bisu àjjuma mu sàggan ba demul barkeelu ci jullit jumaa ga doonte julli jumaa ga waru ko it lay teggin mooy mu farlu rek ba ànd ak waa dëkk ba julli jumaa da ca topp mooy góor walla jigéen ku mu ci mën di doon su boroom xam-xam ñëwee war naa dem ca moom siyaare ko ngir yàlla teral ko la man ngir yàlla sàkku ci moom xam-xam ak barke ñàkk def loolu nag xëtt teggin la moo xam ci góor ga la moo xam ca jigéen ja la bokk na ci ñàkki giin ñaari julit tase ànd ba tàggoo te kenn jéemuuta xàmmiku morom ma laaj ko num tudd ñu xamante ba mën a jariñante ngir yàlla loolu ñàkk def loolu daal xëtt giin la ba tey ku ñu woo ci lu baax nga bañ wuy ji xëtt nga teggiin ba tey waxambaane woo xam ne am nag yaatu amuk féex mën a sàkku xam-xam bu am njëriñ mbaa métier mu am njëriñ defu ko xanaa toog rekk loxoy kese ba waxambaaneem ngoogee jeex ci caaxaan rek xëtt na teggiin te ca mujj nag mooy jullit boo xam ne day lekk ba regg dëkkandoom di ab julit dend ak moom di xiif te du ko jox dara ca loolee ko yàlla wërsëgale ab julit kay bu dendeek mbokkum julitam te tane ko war na koy geestu ci lam ko tanee di ko dimbale ngir yàlla waaye di rekk rek sa dëkkandoo di xiif moom xëtti déggiin gurée la dañuy wax ne sax ku ko def ca dëgg-dëgg du ab julit maanaam daal ak julitam rafetut